maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di jiital nuyoo bi nag di ko tax ci loxo suñu sëriñ a soxna ak imaam yi fi nekk yëpp maa ngi leen di nuyu di leen di sant di nuyu militant yi fi nekk yépp di wax na nag tey bésu tey bi dañoo dajewaat am lu ñu yëkkati muy taxawu suñu population taxawu daara yi mais taxawu maître wu daara yi muy oustaz yeeg yi taxawu boobu nag dañ ko jaarale aussi ay produits antiseptiques wut li nga xam ne ay masque la boole yëpp indi ko pour jàppale population bi mais jàppale sëriñu daara yi lii moo ñu yëkkati parce que yéen ñëpp xam ngeen ne li xew muy contexte Covid bi nekk na loo xam ne dafa métti donc ñun en tant que responsable li ñu war a def mooy gën a jege population bi gën leen jàppale. def nañ ko nag ci bi ka pandémie commencé def nañ ko ci diggi pandémie bi tey ñu ne arrêté nañ li li ñuy wax euh, kii euh, nan la li ñuy wax euh, état d'urgence bi ñu ne nag. loolu doyul parce que bu ñu wàccee état d'urgence bi nit ñi mun nañ yaakaar ne dañuy de waratuñu sol masque yi waratuñu def distanciation te loolu njuumte lay doon ci ñun en tant que responsable ñu xam ne nag dañoo war a dellu siwaat ci population bi wax ak ñoom ngeen xam ne tey la bés bi gën a lañ ko gën a soxla tey lañ war a gën a mun a sol masque yi tey lañ war a mun a dem ñàkku ji mais tey lañ war a mun a gën a respecter li ñuy wax distanciation donc mais loolu it doyut boo defee distanciation def yooyu yëpp dafay dañoo soxla nag ñëw accompagner leen accompagner sëriñu daara yi accompagner euh, population bi ci dund mais aussi dama xalaatoon ne nag il faut ñu yokk accompagnement boobu noonu parce que nag Covid bi fi muy gën a évaluer mooy ci euh, boo demee ci fi ñuy sànge niw yi aussi foofu dafa nekk loo xam ne lu graaw la donc dañoo décider aussi wut ay produits antiseptiques wut ay produits d'hygiène ay saabu ainsi de suite yóbbu ko foofu ci morgue yi pour que vraiment ñu mun a gën a protéger ñi nga xam ne ñoom la yàlla may ñuy dund lii daal mooy objectif bi ñu ñëw aussi di leen di wax ne ngeen xam ne coow li am fii ci dëkk bi coowu jaxasoo la rek coowu si yàq xel la mais président de la république kenn du moom kenn du moom ci li nga xam ne moom lay defare dëkk bi xam nga ki nekk nag di fotow di waxtaan ak ki nga xam ne dafa nekk ci terrain bi di liggéey mënuñu nekk benn waxkat yi nañ leen wax ak wa bàyyeek wax ji jëfkat yi ñu ànd ak président di jëf bu leen kenn perturbé ci loolu wax ji dafa bari mais président yéen xam ngeen ne li dem ci électrification rurale tey démb rek gis ngeen euh, li maire indi en terme de réalisation yoo xam ne bokkul ak li nga xam ne defoon nañ ko Fatick mais fii ñu jëm nii dina leer nañ ñëpp dinañ xam ne Sénégal moo ngi dox parce que Sénégal mosul am problème ñun dañoo gëm ne président de la république talul xale yi talul coow yi xale yooyu nekk fii di wax rek di mbéppi mbéppi talu leen li mu tal mooy la jeunesse mu toppatoo leen wutal leen ay projet di leen di accompagner lim tal mooy les femmes mu accompagner leen wutal leen ay financement ak accompagner leen ci organisation yi mais aussi fexe ba la stabilité du pays mu assuré ko te moo ngi koy def donc nañu booloo nekk benn jaaraama nag la jeunesse de Fatick bi nga xam ne bi coow li amee sax mobilisé wu nañ ne coow benn coow du fi am mu ne yàlla buñ yàqule ci zahir yàlla buñ yàqule ci baatin sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooleem bi fi teew yëpp góor ak jigéen mag ak di si jiital suñu yaay ñilaan di ko ñaanal yàlla yal na yàlla fekk ay fanam yal na ko yàlla may wér ci barki yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaam yi fi teew wóllëre suñuy lool suñuy wóllëre di suñuy xarit lool nekk ñu jege lool mu ne nekk ñu jege lool ànd ak ñun ci liggéey bi ànd ak ñun ci liggéey bi muy guddi muy bëccëg muy guddi muy suba muy ngoon ñaan yàlla bi nee na mi ngi ñaan yàlla wóllëre googu yal na ko yàlla gën a voilà merci maa ngi maa ngi lay gërëm say sa question euh, tey nag dañoo ñëwoon la main de l'espoir pour def niñ doon def toujours mooy indi denrée alimentaire indi ay kit accompagner les population bi deuxième phase bi ñëwaatee aussi ñu ñëwaat def noonu léegi tey ñu lever urgence sanitaire bi ñu jàpp ne il faut que ñu revenir gën a sensibiliser population bi ñu xam ne xeex bi jeexul xeex bi jeexul dans la mesure où il faut que ñu continuer di sol suñuy masques yi il faut que ñu continuer di respecter distanciation yi mais il faut que aussi à la limite di possible nit ñi mun a dem ñàkku ji pour que vraiment une humidité am ci population yi loolu nag buñ ko defee ñu wàcc sur le terrain indiwaat vingt tonnes yoo xam ne dañ ko def ceeb la indi quarante cartons d'eau de javel indi quarante gel antiseptique carton euh, gel antiseptique indi vingt cartons de savon de de savon mais en plus de ça aussi ñu indi 5000 masques pour gën a encourager population yi ñu gën a moytu comme ça mbas mi mun ñoo euh, dëddu mun fee sori loolu daal mooy li nga xam ne moo tax ñun ñu ñëw euh, habituellement yàgg nañ koy def dañuy continuer di ko def vraiment jege population yi di leen di accompagner di leen di dimbali loolu daal moo ñu yëkkati tey. jërëjëf euh, question bi nekk na question bu pertinente fi ñu nekk nii. c'est vrai que ne amoon na temps affaire bi calme woon na leader yi commencé woon nañ di comprendre ne seule l'unité peut permettre dans la diversité quand même unité dans la diversité peut permettre ñu gën a mun a dem léegi ñu xawoon am accalmie ànd di di xeex tey à un moment donné affaire bi xaw a ne tekk tey coow coow am ñëpp jóg lañ doon ñaan nag boobu di affaire bi ne tekk ñëpp xam nañ ne tey bu ñu jógul dina am nu mu demee ku ne jóg donc li ñuy ñaan yàlla te di ko ñaan responsable yi mooy que ne ni ñu jógee nii ñu gën a présent au côté des populations am na ñu koy def nag mais am na ñoo xam ne aussi présent wuñ mais tey bu fekkente ne ñëpp jóg nañ dañuy gën a sant yàlla mais lu ñu gën a bëgg nag mooy bu fekkente ne ñëpp jóg nañ ñu essayer nag xool nan la ñuy dajee boole loolu yëpp suñu doole ba parti bi di waxe benn di defe benn te loolu yaakaar naa ne jot naa léegi benn message ñuy convoquer tous les responsables au niveau du département pour ñu daje ñu waxtaan donc man yaakaar naa ne waxtaan boobu ci loolu la jëm ci nan la ñuy def ba gën a renforcer nos forces ba gën a uniru ba gën a waxe benn baat ba Fatick vraiment ñu mun koo dégg au niveau national parce que nag yeneen dëkk yi ñoo ngi waxtaan di déggoo di defar muy rafet donc ñun aussi waruñu xaar ba di xool nit ñi ñuy dem te ñun ñu nekk les pionniers ñi nga xam ne ñoo njëkk a gunge président ba mu àgg fi mu àgg il est temps que ñu regroupé wu def benn waxee benn jàppale président de la république parce que nag amuñ kenn ku dul moom parce que aussi li muy liggéey leer na neex naa défendre donc ki nga xam ne nag day liggéey neex a défendre vraiment booloo nekk benn rek pour gunge ko war naa yomb donc loolu laa ci waaw euh, ñëpp xam nañ ne président de la république jàppale na les jeunes jàppale na les femmes à travers la l'ADER à travers les différents fonds organisés le fonds JIP le fonds STAP ya ministère yëpp la plupart am na ay fonds yuy intervenir aussi bien sur les femmes que sur les jeunes mais situation bi xew wone na ne def nañ effort yu bëri mais ça ne suffit pas le président de la république décidé yokkaat trois cent cinquante milliards pour vraiment revenir en appui à ce qui était déjà fait loolu nag ñun li ñu xalaat mooy que ne war nañ mun a def une évaluation de des fonds là ñu xam lan mooy la problème bi ba fonds yi nit ñi mënuñ ko sentir ou bien li nit ñi di xaar ci ci fonds yooyu mënuñ ko jot mais une évaluation vraiment rapide parce que man li ma bëggul mooy et d'accord ma ko mooy que ne ñu ñëw di sottiwaat rek te du am benn vision du am benn orientation